ñu ngi dellu siwaat ak yéen ci seen téere boobu téere bu solo boobu ñu fiy faram fàcc ci bis bu ni mel muy maa laa yasau atfaalu muslimina jahla kon tey ñu ngi tàmbalee ci tàmbalikaay bi ginnaaw bañ jëree présentation bi wala laltaay bi ci jataay bi weesu tey nag ñu ngi tàmbali ci tàmbalikaayu téere bi ci page numéro six ci ñuy topp téere bi muy qismul aqida xaaj bi nga xamante ni moom la jaglee wàllu pas-pas mu indi ci ñetti laaj yi ci samp ñetti laaj yi mooy man rabbu ko kuy sa boroom maa diinu ko luy sa diine man nabiyu ko kuy sa yonent ñetti laaj yi li ci cosaan mooy xadis yi nga xamante ne ñëw na ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy xadis anas ak xadis albara kon mooy ñetti laaj yi laaj nit ki ci biir bàmmeelam kon nag faaw mu préparé ko de préparé tontu ko ndax mokkal ko du ko tax a tontu mais jëfe ko moo koy tax a tontu moo tax naa fekk yéefar bu mokkaloon preuve yépp ñëw ci biir bàmmeel du ko tontu mais li koy tontu kon mooy li nga xamante ni moom mooy moom mooy jëf ak dëggu ak sellal te yàlla dongu tax kon laaj bu njëkk bi mu ni man ka kuy sa borom téere bi téere bu am solo la ndax ku nekk war na ko jàngal say doom ñu xam ko ni nga xamante ni mag tamit noonu la ko soxla man rabbuka kuy sa borom mu ni rabbi allahu alladi rabbaani yàlla mooy sama boroom moom mi nga xamante ni moom ak moom ar rabb buñ ko waxee mooy tawxiidu rububiya mooy moomeelu borom bi subhaanahu wa taala te xaaj la ci xaaju pas-pas si parce que tawxiid ñetti xaaj la tawxiidul uluhiya tawxiidul rububiya tawxiidul asmaa wa sifaat tawxiid bi taxoon nag yàlla yónni yonent yi mooy tawxiidul uluhiya parce que yi xam ngeen yëfaru màkka yi mosuñu am problème ci tawxiidul rububiya ci tawxiid rububiya lu dul ci yenn kii yu ndaw a ndaw a ndaw nga xamante ne yeneen détail laaj توحيد الربوبيه بول لا جون كان مو بند اسمان السوف من لا يالا ولا سالته من خلق السماوات والارض لا يقول ان الله كون مسلم يوم بروبليم كي توحيد الربوبيه تاي غي غيس اي نيت بل اي ньо خامل لي نبو اي كليفه نجي تاي مbolo دي ووتي ليغا خامل تي موي بوكال يالا سبحانه وتعالى كي توحيد الربوبيه يالا نتي يالا مسلم اي نيت يو خام داني توك نان يالا سبحانه وتعالى بوي بند نيوم دنجي ام ليغا خامل تي موي تير بل صح يالا داف لين دي لاج تا لا وخ يب دار دو سي دغ اي نار لا waaw ku nekk di woote kii naan yàlla may na ma lii kii naan yàlla may na ma lee mel ni kuy concurrence ci li nga xamante mooy sosal borom bi subhanahu wa taala yàlla mu ne man azlam mimman iftara ala allahi kadiban ki dàqatooñ mooy ki sosal yàlla tey ana ñaata nit ñooy ñëw ndax naan yàlla de feeñu na ma yonent bi feeñu na ma yàlla dafa weddi loolu subhanahu wa taala waaw daf ko weddi ba mu sëbëj wa man azlamu mimman iftara ala allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuxa ilayhi shay yàlla mu ken wahyu ko dara kon wahyu dakk na ba yonent bi alayhi salaam génne àdduna saxaaba yi lool la ñu xamoon moo tax ñu jooy xam ne dara dootul wàcc ci diine ci nga tëdd ba nelaw ba yandoor ah bay bëgg a dee yeewu naan yàlla nee na ma nangam ak nangam moo tax bokk na ci li ngay xamee ni diine yi diine maanaam li ñuy woo ci diine tappale mooy benn kuréel jagoo ko wala benn tariqa wala benn mbooloo jagoo ko diine joo xamante ne ñëpp ko bokk képp ku xam day wax ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ak mënti nekk cinq continents ay kurel ñëw ni ñom yàlla feeñ na leen li ak li seen tarixa moko jago lool bokku na ci lay wone lool tapale la mais mbirum shayatin la du mbirum yàlla subhanahu wa taala kon yàlla neena moy sama borom wa rabba jami al alamin bi ni'mati moom moy borom mbindeef yep moom yàlla subhanahu wa taala mo leen sak ci xéewalam kon nak nañ ko sante moo tax yàlla mo ne woon alhamdulillahi rabbil alamin kon loolu mooy laaj bu njëkk bi ñaareel laaj bi mu ni maa diinuka lan mooy sa diine ديني موي الاسلام ديني موي الاسلام في بو جيتال من نبيوكا آه، دينا نيكول ام سولو داخ داج لاي لاج سي باميل كان موي سا يالا يعني بروم بي سبحانه وتعالى كان موي سينت يعني محمد عليه السلام سي لان غا كو دون جامو غاني في القران داخ بيغا وخه يالا موي سا بروم يونت عليه السلام موي سين داخ دون كو دون جامو نولا نيه ولا سي بان بان فاصون كو دون جامو موي بي يونت عليه السلام اندي تا موي لولو ماي ما دينوكا موتاخ fi bo jitu lan lol na nekk lu am solo mais amul ben problème batay taqdim ak takhil rek yeex ak jiital kon ñaari laaj bu ni ma diinu ka lan moy sa diine mu ni diinil islaam sama diine moy l'islam mu ni lislaam boobu nag mooy al istislamu lillahi bit tawhid ñu bëri tey da laaj ñu la man julit la mais lan moy julit ndax julit moy da nga nan dang koy wote wal déet moy al istislamu lillahi bit tawhid moy nga jébbalul yàlla subhanahu wa taala ci diko kennal bañ ko ak dara ndax yàlla kenn la qul huwallahu ahad الله الصمد بمجيه والانقياد له بالطاعة نكوي ومرت المنبرون بديك توب دخ موي كيغا خامتيني موم لاني ورا توب كين ورا توب كينين مو ديغال ني توب كو توب يونتي بي عليه السلام ندخ نون يالا يونتي مو نكو خامل كون لول موي الاسلام كون بيسو جيبلو سي نيت مي جيغي جيبلو كين لا موي بروم بي سبحانه وتعالى كون الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وهلي بنك بوكالي اك بوكالي كدي motax nit ki faaw nga am al wala wal bara bi nga wote l'islam ba pare faaw nga am ak pété di bëgg te yàlla tax mo ñu nekk ci tawhid ak sunna di bañ ñi nga xam ñoo nekk ci shirk ak bida den ci ñoom ba set wicc yàlla mu ni inna diina inda allahi al islam dine fa yàlla dem ko waxe moy li nga xamanteni moy al islam islam moy lan moy al istislam lillah bit tawhid wal inqiyad lahu bit taa wal baraatu min ash shirk wa ahli lii mooy lislaam lii la nit ñi war gor gor kon faaw nañu ñu bàyyi ko xel kon buñ la laajee moy sa diine sa diine moy l'islam l'islam moy diine bi yàlla reconnaître ben diine la ginnaaw yeneen te wax sax amul beneen diine buy am bal diine yi amone yépp dañ leena lan dañ leena a folli l'islam dong mo existé inna diina inda allah l'islam yàlla mu ne man yabtaxi xayra al islam dina falan yuqbal min kep ku fi ñuk dem xol leen l'islam des ko nangu ci yow kon lool faw ñu xam ko ñettel laaj bi muni man nabiyuka kan moy sa yonent tontu bi mooy muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nañuy bari luñu julli ci yonent bi alayhi salatu wasalaam ndax yàlla daf ko day julli ci moom moo ko ay malaaka waaye daf ko digle kon nag yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima julli leen ci yonent bi alayhi salatu wasalaam kon yonent bi kan mooy suñu yonent mu ni yonent muhammad alayhi salatu wasalaam kon nekkete benn yonent moo am mooy yonent bi nga xamante ni moo fi mujj yonent yi bari nañ mais ki ci mujj mooy sayyidina muhammad alayhi salatu wasalaam moo tax yonent yi jiitu woon loolu lañ dénk seeni xeet wa id qaala isa bnu maryam ya bani israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadaya min altawrat wa mubashiran bi rasulin yati min baadi ismu ahmad kon yonent yëpp dañ dénkoon seen xeet am na yonent bu ñëw bu ñëwee nañ ko topp moo tax yonent bi alayhi salaam wax ni amul kenn koo xamante dina ma dégg muy juif muy chrétien te gëmuma lu dul bu deewee day bokk ci waa safara la yasma bi yahudin wala nasranin waaw suma lam yu'min bi suma lam yu'minu bi lu dul bu deewee day bokk ci li nga xamante ni mooy waa safara kon yonente alayhi salaam mooy ki ñu war a topp ñëpp ko war a topp mooy royuwaay bi laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana yàlla yónni gi mu ko yónni jubluwaay la kon nag faaw ñu topp ko diine ci moom lañ koy taataane kenn du ko taataane ci keneen moo tax yàlla mu ne muhammadun rasulullah yonente alayhi salaam ndawal yàlla la ndawal yàlla la mooy lan mooy dafa am lu ñuy sàkku ci yow boo ko waxee baat bi mooy nga topp ko ci lim la digal lépp lum la tere nga bàyyi ko waaye bul jaamu yàlla lu dul li yonent bi islam yoonal kon lii mooy li nga xamante ni mooy darsu tey bi darsu wu tënku la waaye nag bu am solo lool ndax ñetti laaj yi mu samp moom lañ lay laaj ci bàmmeel te bàmmeel mooy sa kër gi njëkk ci yowmal xiyaam kon nag boo fa amee réussite alhamdulilah boo ko fa amul bul yedd lu dul sa bopp yaa tooñ sa bopp kon nañu góorgóorlu waat baax a baax darsu bi ñu bàyyi nafaraat ko mokkal ko waaye jàngalewaat ko kenn ku ci nekk ci langue boo ko mënti jàngale nga jàngale comme niñ ko waxee woon noonu la ñuy ndar keppee li nga xamante ne dars parce que dars dañ koy bind topp ko déglu ko comprendre ko waaye mokkal ko jàngale ko di jëfe yàlla ñu yàlla defal tawfiq fi dunya wal axira hada wallahu taala ala wa alam wa sal allahu wasallam wa barak ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain